si ñu bëgg rek nga fàttali ñu tur bi man Fadi Diagne laa tudd fan nga dëkk maa ngi dëkk fii som ñetti cadre som ñetti cadre mhm. alors sa doom bi nu tudd Assiette Touré Assiette Touré waaw Assiette ñaata weer la am Assiette le premier mai bi lay am at le premier mars mars waa lay am at waa alors euh, dafa feebar waaw war ko defal opération opération waaw amee lu wax cardiopathie maanaam dafa amee cardiaque waaw dafa amee cardiaque waaw ñu war ko opérer opération bi 3 millions 500 la papaam loxoom jotul ginnaawam dem na ba sonn daal fu ñu xam dem nañ fa waaye ba tey opération bi kii amaguñ luñ ko opéré. ñuy bi mu ko juddoo dañoo foogoon asma la léegi ñu yóbbu ko ñu bindal ko ay garab di ko traité traité ba ci yàgg yaram bi def ay taab. léegi ñu ne du asma nañ ko def kii rajo def rajo génn ñu defaat rajo kër bi ci la feebar bi génn fii hôpital régional waaw fa la entré woon bi ne ginnaaw suba la tabaski la la génn foofu hôpital régional ñaata la fa def foofu def na fa trois jours lañ ko fa téye fekk daa fattoon léegi nag ci la docteur bi di ko traité mu daal di ñu bindal këyit ne dem leen fee Fann Albert Royer biñ demee ñoom ñu xool ko ni laa war a opérer léegi nag papam laaj leen am na suñu benn maire tamit ku ñuy wax Mari Fay ku baax ci koñ bi la dëkk mu jàpp ci dox ci ba sonn def na lu ne moo taaru saa waaye ba tey yàlla sottalagu dem nañ fu ne nag. alors xale bi mos ngeen garabu olof wala yu ni mel. garabu olof déedéet xoolaguñ ko. xoolaguñ ko waaw daal la. waaw dañ ko yóbbu hôpital waaw. fekk bàjjanam moo koy sang mu seetlu nooy bi nooy bi normalul mu ne xale bi de nooyam bi dafa gaaw léegi ci lañ jël portable bi xool heure kii bi ak nooy bi mu gën a gaaw portable bi mu jékki-jékki nag daaneel ko def ko sëqat ñuy fat ci lañ ko yóbbu hôpital waaw ñu gis léegi lu papaam yoroon ko ci. lépp kay jeexal na day liggéey ba wàcc sax jël motoom daw pour am lu mu jëndee ordonnance ak lu mu jox njabootam ñu lekk ndax sonn dafa muy liggéey fayu ñu dañuy toog set mois duñ fay. duñ fay maanaam mu am mu nekk ci ay jafe-jafe. waaw mu nekk ci loolu lii tamit teguwaat ci. alors euh, booba léegi li ngeen wax nii ci koppar dafa bëri parce que 3 millions 500 lañ leen wax. waaw te médecin yi ñu jox Albert Royer foofu lañ ko defee opération. waaw foofu la war a opéré waaw. Ah. Nah. alors léegi ban appel ngeen di lancé mbir askan wi ñun koy ñëpp rek ku ñu mën a dimbale rek tax ba bi ju am wér gi yaramam am opération bi laa ñoo ngi ñaan dimbal ku ñu mën a dimbale rek te yàlla tax ndax sonn nañ jaaxle nañ guddi gi du nelaw man maa ni dama feebar sax tension bu yéeg ndax du ma nelaw ba asamaan set fan yëpp da koo daaneelaat muy rek jënd nañ ordonnance ba sonn papa amatul dara jeexal ñu tàkk alors ku leen bëgg jot 77 038 67 40 képp ku bëgg jàppale daal euh, bébé as yi a def opération ginnaaw fan nee dafa amee cardiopathie mhm. euh, mu am nag euh, fukki weer ak benn at nga dëkk som mhm.